ba tey nekk ak euh, le grand champion Lirou Diane mu waa info. maa leen di ziar yéen ngeen a bokk su ñun. waaw yéen a ngeen a bokk su ci kaw ci kanam rek. waaw maa leen di ziar di fay. waaw ah, Lirou tey ngeen ñëw am benn bis bu rëy seen plein poids booy jinne di bëreeg Papa Yada mu doon xale boo xam te ne ko ràññee muy bay waaram avant tout psychologiquement ban état d'esprit ngeen toll waaw xam nga bis bi soo xoolee ni mu mel rek wane ne bis bi jaay na boppam bis bi wane na boppam gis bis bi rigueur bi mu àndal a rigueur bi mu am euh, xale bi moo toll ndax booy bi dafa am lu nekk ci ginnaawam tey nag li nekk premier grand combat am kon il faut mu demee nii li koy ñaanal yàlla ko yàlla fa cat te may ko ndam lu sedd guy te mu gën ci moom fi ma ay magam jaar mu jaar fa waaw loolu lañ koy ñaanal fi ay magam jaar ay Balla Gaye 2 ay ñoom la de guerre Balla لكن خلينا نطبق نعم يالا ديمبل نيو بري دي دان لول نك مو لين ورا ييه نيو خول سين نيو تك سين بير في سين ماك تك بتوم نيو فخ فا اغ تا يالا يالا جابال نان ليغي رك لامو جي كان مومكو يا جيف مي بو نيو خولي بوا بيم يور تاولي دولم تول نون سي مو مو موكو ليغي بوي بي خلال داي ماك كي خلالا خلالا ما خمنا ني خلالا سوما لا خلالا خلالا زكو لا تريبي لوي لا xale la sama fils maa ko yar ma jógee aussi sànq ci kursam ni ko laaj ko ci différence de poids mini poids bu ci dara parce mbërëm moo dàq bëree sa mbër te yàgg na contact ay poids lourd kan moo wax loolu course Papa Yada waaw loolu la yaakaar rek ndax kii su nekkee poids lourd yàgg na papa bëri naa ku ne te doole ji yor moo ko moom na xaar ci kanam li si li si des bëreetul léegi rek ci kanam leen leer waaw mbër ñu gis keroog ci open waaw rafet na ñoo koy rafetlu c'est normal ñoo ngi koy rafet lu ngi koy rafetlu loolu lu baax la waaw ñun ñëpp dee nekk benn sooba yàlla ñun jàmm rek la ñuy woote. at na amul solo lépp gi samay jeex dégg nga su jeexee rek jeex na su jeexee rek jeex na. foofu laay taxaw tuuti nag su jeexee jeex na ñëpp xam nañu Boy Niang numéro 2 moo xam moom war a bëri la déggee numéro 2 daan nekk le chef de file de l'écurie Walo combat bu foog nga wax ci. moom moo wax su jeexee jeex na moom moo wax su na ah kon na su jeexee jeex na ba la nga der booy ñaar la see bëreetul léegi mu ñëw yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm. mais lii lu lay wax ci laamu jooju xëy boobu combat. waaw xëy boobu combat xam nga la ca xew mooy ma wax boobu combat xam nga boobu combat xew. foo dëkk yow ah, man ab journaliste laa xaw ma li ci xaw ah liir man ab journaliste nga. dëkk ah, dëkkoo géejewaay ah. mais je suis neutre je suis un journaliste liir waxal ci laamu jooju. yooyu ngay def li ñaan yàlla may ñu ndam lat mi ngi liggéey nee naa booy ñaar dafa dugg géejewaay si dama si kii si arrêté à Boy Niang à Guédiawaye xam nga ko si kii si arrêté à Boy Niang. loolu mooy la grande question loolu la leen yaakaar nga la dëgg de war na ko mën a arrêté. moo koy arrêté nag sooba yàlla moo tax ma ne leen si kii si arrêté à Boy Niang à Guédiawaye la loolu weesoo récemment Boy Niang dem Japon préparé instant la dëgg de kenn gisu ko. ana lak fan la nekk fan la nekk moom. maa la wax léegi. lan la mën a jàpp daal ci combat boobu ci gàttal. yàlla na yàlla suturaal ba yàlla yóbbuñu si jàmm ñu nekk ci en forme kenn bañ a ñoom ñaan ñëpp kenn bañ a manqué ñëpp nekk ci en forme la dëgg daan ko jël bu sedd waaw loolu la ñuy ñaan xeexee. ayuu ay sunu xeexee ay sunu xeexee ay sunu xeexee. ndax dóor mu daan mën na ci am. lu ne mën na am lu ne mën na am. waaye bu neerum kum dañu liiru. Ah, xam nga ko su neerum kum dañu ay maay booy ku la jàngal ay booy. ay booy lax cat yàlla laaf yàlla. mi ngi lay gërëm di la sant bu baax.